li waral ndaje mi lu yomb la ndaje mi wootewuñu wuñu wootewuñu woote dañu woote tout simplement rek pour joxe benn information parce que dañu ni xeddiku ca ba nga lakk dañu dëkk fii Mbàkke nekk ci parti démocratique sénégalais gëm ko di ay mag di ay kilifa ànd ak ay ndaw ñu gis ni li wolof di wax naan li raam si ñag bi la jëm te ku ñuy jiiñ ndëmm doo seccoo soccoo yeeli liir ñu wax Saliou Dieng chargé de mission Karim Wade mu bàyyi xel ni ñun waa Mbàkke secrétaire général PDS Ablaye Wade sax duñu tànnal ki ñuy jiite fii ci Mbàkke ci fédération bi ñun waa Mbàkke ñoo xamante ci suñu biir ñun ñi ànd nekk ci parti bi xamante ñooy xool kan moo nu doy ci jiital nu suñu fédération bi te ki ñu doy professeur Lamine Fall moo ñu doy pour jiital bu ñu dajee ak ñi nga xamante ni si suñu ay nawle lañu di communes yi nga xam ni tey bi ñu séddalee fédération bi ndax benn la woon Touba ak ñu séddale ko Touba am fédération am commune yu mu boot Mbacké am fédération am commune yu mu boot commune yooyu yëpp ñëw nañu ànd ak ñun ci pour Lamine Fall jiite fédération bi ñu waxtaanee woon ko ba takk suñu say parti bi yebal fi commissaire yi ñu waroon na defal loolu ak superviseurs yi am ku génn tàllal loxoom ni candidat la ñun nag tudduñu ma Sàmba tudduñu ma Demba kenn ñu ñor muy professeur Lamine Fall moom la ñu tudd defe naa ni nag tey bu ñuy diaboliser professeur Lamine Fall ci daa dem fii wala daa dem faa dama bëgg kenn ku nekk nga dem ci liste bokk gis-gis ci majoritaire ba nga xool numéro 25 kan lañ fa tudd te mu dëkk Mbàkke kon kooku moo génnoon PDS di sànni ay xeer waa PDS dellu si tey bëgg a tàllal loxo naan day jiite fédération Mbàkke lànk nañu tey lànk nañu bu subaa ah du Saliou Dieng moo ñuy imposé ki ñuy jiite du Karim Wade moo ñu koy imposé PDS lañu gëm Karim Wade lañu am comme candidat wante ñun waa Mbàkke ñooy tànnal suñu bopp ki ñuy jiite point bar commune yi ñu àndal yépp Njumaan Daaru Salaam Tiib ba Cekkeen maddina Déndey Mbàkke ñépp ñoo ngi fi ci loolu lañu ànd loolu la bëgg a def